Eh, salaamaaleykum jaajëf sama gars ñu ngi leen di ziar di leen màggal di leen damoo di leen tiitaroo ñoon di waxtaan ak yéen benn waxtaan bu gàtte rek waxtaan boo xam ne vraiment yaakaaruñ ne dina sori ginnaaw buñ leen nuyee ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen di leen mastaw nag démb li nga xam ne am na fi mooy procès pornographique bi nga xam ni Macky teg def na ko fi waaye mooy li ma leen di wax rek ci samay waxu démb ak bërki démb nee naa leen bu ma sañoon bu ma ñëwee wax leen li nga xam ne ñoom moom la ñuy def yéen peuple bi ngeen def ci loo xam ne ñoom duñ ci am ndam parce que loolu mooy loolu mooy moo waral man may dem di wëri information di leen jox te coono bu day bu doy waar laa ciy daj ay danger tamit laa ciy daj parce que nguur bu formé wu def seen système ab benn gone gu jóge fële nekk ba Canada di lokkati seen i information di leen ko jox ci yu gën a détaillé yu gën a détaillant loolu ñoom xam nañ ni ku toogul ak ñoom réunion mënu ko xam oui c'est à moi merci beaucoup ndeysaan dama ko dama jënd lii fàtte ko mu indil ma ko ba fii loolu mooy sens nit donc dama leen di expliquer affaire yoo xam ni ba ci détail yu gën a ndaw a ndaw a ndaw ndaw ndaw te yaakaar naa ni démb procès bi nu ma toogee nii am samay renseignements généraux du sax renseignements généraux parce que renseignements généraux kenn new fa gars yi kenn new fa ñoom ñoom new ñu fa ñoom pare na ak man nee nañ ma Mollah li ñu la waroon wax ci procès bi wax nañ la ko wax nga ko sénégalais yi <laughs> soxlawu ñuy dem tribunal ba naan dañ lay raconter dara parce que mënuñu la fa raconter lu bees ci yow lépp wax nañ la ko dem bu ma toogee am booy sénégalais yoo xam ne lu fa xew rek ñu ñëw bind ma ko man leen mais man xanaa bu recopier li ma leen doon wax ngeen di recopier di ma ko jox parce que yéen lii yëpp wax naa leen ko détails yi gën a ndaw wax naa leen ko si vous vous souvenez démb lu nekk dañ la résumé la bu doon examen ñëpp koy réussir ñëpp koy réussir parce que anticipé naa ko wax naa lépp lu li ngeen fay fekk wax naa ba wax détail kan moo dégluwul fii moo laa wax ba dinañ wax ni aji Sarr dina wax ni Ousmane Sonko moo ko sodomisé moom moo ko juutal dugal bagaasam yi affaire bi génn affaire bi taq ay day lool sax wax naa ko fi te démb dégg ngeen ko tey moom lañ bind ci journaux yi waxoon naa leen ba wax leen ne bu ñu paree journaux yëpp loolu la ñuy bind loolu la ñuy loolu la ñuy commenté bi ma amee aussi journée moom lañ commenté donc man dama leen di wax ba wax leen ni détail benn par benn wax leen li ngeen fay dégg wax leen wax leen ne Adji dina wax ni Ousmane Sonko da ko sodomiser bu mu dugalee bagaasam bi bu mu génnee sax dafa takk ay puub mais mais ku leen wax loolu kay sa waay nekk ba Canada di leen wax loolu ngeen dem fekk ko fa gars yi bind ko tey mais amul benn détail bu gën a ndaw boo xam ne bàyyi naa ko ba bu ma wax sax ñu bëri naan astafurlah non nangam nangam man leen def leen ndànk du loo xam ne maa ko créé du loo xam ne maa ko bind. mais yàlla dafa def ni ñiñ may booleel nekk ci biir système bi xam affaire yi lépp li nga xam ne dañ koy pare donc man waxantu moom dama wax naa gën naa leen ko wax ne laan gën Galilée wax jooju du neen gën Galilée gën Galilée nag Galilée moom moo fi waxoon la terre est ronde ñu dagg bopp bi ñu dem ba at jëmmi jamono ñu xam ne laa ter e lay rond ñoom ñëpp jooy di ko regretter naan non ce n'est man man dans génération au Sénégal Galilée laa fa lu am te sénégalais jotaguñ ci dama leen koy wax bu ñu yuuxoo wala ñu jooy wala ñu ne wala ñu saaga ma sax damay ree parce que damay xam ni le temps dina leeral ni man kenn mënul dindi samay wax man samay wax jant la boo ko jàppee rëcc nga boo ko jàppul dee nga damay wax ab jant la kenn mënu ko wàcce kenn munu ko sànni kenn mun dara donc man moom sincèrement li ma mën maa ngi koy def information pexe lépp lu ñuy def maa ngi ñëw naan leen lii nii la demee lii nii la demee lii nii la demee am ñu leen di wax naan leen non dossier bi vide la vide la loolu wax naa ko yàgg na dossier bi dara du ci am dara du ci am dossier bu amul dara bu vide ñu jël ko yóbbu ko cour d'assises chambre criminelle dossier bu amul dara ñëpp xam nañu amul dara dossier bu vide ñu dem di ko juger ba deux heures du matin jàpp trois heures du matin xam nga ku lay wax loolu dossier boo xam ni dossier bi dossier bii nii tey buñ def ñu génnewul video bi man maa tax <laughs> dossier bi am na monté nañ seen i vidéo ni ma leen di waxee ba leen di expliquer détail par détail dossier bi man man gis nga plan bi plan bi dama cee dee nag plan bi dama cee dee plan bi dama cee sonn dama cee sonn billaay affaire Ousmane Sonko bii gisuma ku ma ci gën a sonn plan bu ñu teg ma déjoué plan bu ñu teg depuis deux mille vingt et un ba léegi jàpp deux mille vingt deux ba deux mille vingt trois li ma leen liggéeyal ci affaire Ousmane Sonko bi doomu aadama du ko liggéey doomu aadama du ko liggéeyal Ousmane Sonko ci dossier Adji Sarr bi munul nekk doo ko gis dama ci sonn dama ci jox sama bakkan dama ci lu ne dégg naa ko ci. saaga nañ ma ci ndey wax nañ ma ci lu ñaaw fenal nañ ma ci sosal nañ ma ci lu ne kenn kenn amul ku ci ku ma ci ma ci waxul lu ñaaw te démb démb ñëpp ñëw ñëw nañ non Mollah maa ngi jégalu non Mollah non Mollah waxoon nga lii non Mollah non Mollah man damay def teg parce que man jàppee ma kenn lenn parce que damay jàpp ni yàlla moo def nii fu may jëlee information yi gars yi <laughs> duñ fa yegg te fu may jëlee information yit xam naa ni lu dëggu la parce que loolu gis nga tey jii procès bi dinaa leen ci wax dara nag xëy na mun naa ñëw waxaat leen mun naa ñëw bàyyi leen ma xel de mun naa génnaat waxaat leen ñaata la ñuy dóor Ousmane Sonko mun naa génnaat waxaat leen ko nag comme dof baa ngi de dof baa ngi nii de dama ne déglu leen ma bu baax maa ngi ci seen tànk ñoom maa ngi ci seen biir réunion yi maa ngi toog ak ñoom dama ne avant lii nii procès bii nii le premier juin boo deful naa nga ma génn wax leen ñaata la mais daal xam naa ni dara jóg bi luñ ci jóg te moom depuis début bi ba léegi bàyyeeguñ ko moom mooy kon ne condamné Ousmane ko ci dugal ko ci kaso bi lu dul loolu lu ñu leen wax day dañuy caaxaan basé wuñ ko ci dara dossier vide bu ñu jël yóbbu ko cour chambre criminelle maanaam cour d'assises fen fa dossier bu ñu téye deux heures deux ba deux heures du matin jàpp trois heures du matin sans preuve ci ay wax kese kon dossier boobu wuñ ne la condamné nañ ci Ousmane Sonko tëj ko ci kaso waru la bett waaw man kay li ma wax dafa leer dama ne leen mun naa ñëw sax wax leen verdict bi te génnagul mun naa ñëw wax leen verdict bi te génnagul ñu dóor leen verdict bi ngeen téye ci seen bopp di ma wëriti moo laa waxoon nañu li moo laa waxoon nañu li donc daal li ma leen wax daal mooy ngeen préparé wu dossier bu vide bu jël yóbbu chambre criminelle atte ko ba 3 heures du matin donc ñooñu sans preuve ñooñu ci ay waxi kese vidéo bi moom man maa leen dawloo gëluma la man de barke alxuraan Sénégal bu sénégalais bu ma ñimee dama la dama la woon ginnaaw wala ma wala ma sore la sénégalais bu may wax ngay werante ci samay wax dangaa dof wala sa yaay juru ku baax man maa wax loolu dama ne man Mollah Morgun bu ma waxee sénégalais werante ci jàpp xool leen yaay ji yaay ji am na problème ci njureel gi la parce que man dama dul waxantu amul ragaluma du ma ragal ragaluma tiituma amul ragaluma tarfetal ay ne man dama waxantu moo waxee takkal téere te dem ak moom peuple bi ñoo war a yokk seen la yokk seen fayda Macky Sall wàccagul ci loo yoonam juge buy dof dof lu mu éliminer la jëlaat benn juge teg li mu sant lu mu santaane la bëgg ñu defal ko ko nee na Ousmane Sonko du dem ci élection yi te da ko bëgg a tëj avant les élections ñi ngi xool ba xam nan la ñu mën a def jamono ji nan la ñu mën a def pour tëj ko ci benn moment diir boo xam ne dina xaw sori boo xam ne sénégalais duñ ko mën a résister ñoom loolu lañ jàpp xam nga tey buñ dee bu dee juin lañ ko euh, lañ lañ def affaire bi jugé ne dañ ko condamné benn damay joxe ni rek pa ñëwaguma nag benn cinq cinq ans de prison wala deux ans de prison wala ñoo xam whatever donc dañuy bëgg dugal ko ci kaso bi pour Ousmane Sonko bu mu fekkee élection yi maanaam Macky Sall nee na nañ ko tëjal Ousmane Sonko na Ousmane Sonko nekk ci kaso bi ci moment élection yi nanguwul Ousmane Sonko nekk ci fii nii maanaam waxuma sax dem de nee na du dem mais da ko bëgg a tëj ci kaso yi. da ko bëgg tëj ci kaso yi nga xam ne du ànd ak benn du du ànd ak kenn di campagne du ànd ak kenn du ko soutenir parce que xam na ni Ousmane Sonko bu ñëwee gagné bu amee kum àndal nga gagné kum gunge nga gagné. donc Ousmane Sonko Macky Sall dafa décidé dugal ko ci kaso bi boo gisee nit yi daw ko lu tax ñu daw Ousmane Sonko parce que Macky Sall dafa wax ñoom Barthélemy Diaz ne leen boo leen yaboo ngeen dem dàqante seen chance parce que booy bi dama koy dóor ci kaso bi loolu nag lenn kese moo ci mun dara mooy ñun le peuple moo war a def justice luy même peuple bi moo war a def justice peuple bi ñoo war a jóg def justice mu jeex loolu kese la fii jarul muy sori Macky li mu jóg te mooy tëj Ousmane Sonko ci kaso bi na peuple bi jóg def justice boppam ñoom jë def nañ seen justice bopp justice à la solde de Macky Sall kon peuple bi dafa war a jóg moom tam def justice boppam point wax ji da waratul bari wax moom da waratul bëri moom. wax ji moom joratul bëri loolu daal xam naa ni lu ñu mun a wax la waaw Seynabou Seynabou kooku ñoom ñoo ko fay rek indi ko kooku musul jaar Sweet Beauté xamul sax Sweet Beauté ab cagala rek ca caga dafay dëgër fit cagala caga la daal cagala boo xam ni mag Adji moo ko indi waaw caga boo xam ne Adji Sarr moo ko indi jeex na tàkk waaw Adji Sarr moo proposé ay cagam bu boobu ci caga yi ànd ak Adji Sarr la Adji Sarr moo proposé ay caga am ñu nangu am ñu nanguwul Seynabou nag moo nangu ñu fay ko xaalis mu ñëw <laughs> di seede xamul fu Sweet Beauté féete bu boobu boo ko yan woon na ko Sweet Beauté euh, ban couleur la xamul xamul sax couleur bi ab caga la rek ca caga day dëgër fit nag caga day dëgër fit xam nga ku mun a jël sab ndar payen jox ko junni góor yu bokkul nday bokk ñu bàyyi xamoo leen ci aadama xamoo leen ci awa kooku dëgër fit rek a koy kooku moom kooku moom mooy euh, métier bu gën a salte <laughs> donc euh, seen bu moom ab cànga buñ fay la rek <laughs> voilà <laughs> mu def liggéeyam vraiment yooyu moom yóbbu leen ko nee leen ko mu wan leen Sweet Beauté seen bu xamul sax Sweet Beauté ban quartier la ne xanaa Adji Sarr wax ko loolu gouvernement bi liggéeyu gouvernement bi la moom moo parce que aji saar moom kese projet bi def projet bi moo salte procès bi moo salte procès boo xam ni yow Adji Sarr moo am ay avocat mais ay ay avocat wu ndey xari démissionné avocat wu ñëpp ñu bàyyi leen à merci de la justice ñu def seen i seen i pexe <laughs> non musuma gis lu mel nii lii musul am Sénégal <laughs> mais nag Macky Sall mu ngi def plan de Macky Sall man lu ma lan moo ma neex ci waa ji mooy waa ji bandi salte la te du reculer te faalewul moom moom maanaam lépp lu mu santaane dañ ko koy defal boo hésité mu éliminer la point mu jógale la foofu teg fa keneen procès def na day def procès def na procès def na day yàq deru Ousmane Sonko yàq na deru Ousmane Sonko def na ay procès pornographique lay def def na procès pornographique am procureur am dóor na vingt ans dix ans réclusion criminelle dix ans nangam nangam quinze cinq ans ñu ngi ñu fi nekk nii del dem nañ dañuy réunion ji Macky Sall fu nekk dañu dem gisi ji ak Macky Sall dañuy réunion ji wala Macky Sall yónnee ay gars yi ñu yan gaz de sécurité ngeen soxla mu gérer leen seen gaz de sécurité ñu dem du euh, mun nañ dóor Ousmane Sonko cinq ans euh, de prison ferme dóor dóor benn nday xadi benn un an wala deux ans kon Macky Sall wàccul ci li mu nekk projet de liquidation boobu d'élimination boobu mu jóg ci Ousmane Sonko dafa projet yàq dar la woon def na projet de liquidation ma nga ca bàyyiwul. mais peuple bi lan mooy seen projet le projet du peuple doit être Sonko ou nothing Sonko ou rien Sonko aux élections ou le euh, le dëkk bi day tàkk Sonko mbaa kenn du fi dund Sonko mbaa ñu boyal dëkk bi ba mu tàkk wala ñu moxoña dëkk bi ba mu jeex tàkk ñëpp yem ci c'est que ku ci nekk tam da am projet bu Sonko <laughs> projet Ousmane Macky Sall mooy éliminer Sonko projet projet ay nitu Sonko wala ay nitu Pastef wala ay nitu sénégalais ay sénégalais dafa war a doon Sonko ou rien c'est tout loolu kese moom bu amee ambition nga am ambition loolu kese la mi ngi def li muy def nga def li ngay def man de loolu laa gëm affaire amul taxaw léegi nag instant yii la. xam nga da ngeen bëgg a xaar ba le premier xaar ba le premier il faut affaire bi léegi la de gars yi du xaar ba le premier de jay bu ñu xaaree ba le premier ba gars bettuñu xam nga Macky Sall xaj la nee na sénégalais yi mënuñu maintenir de juin jusqu'en mars prochain mënuñu ko maintenir ci xeex parce que dañuy jàpp ni sénégalais dañoo gaaw a suur ñoom loolu lañ jàpp ni gars yi buñ bu ñu assommé Sonko juin dugal ko ci kaso yi buñ ko dugalee ci kaso bi gars yi mënuñu xeex juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février ñoom loolu lañ wax loolu lañ wax chaque jour dama naan loolu lañ wax man du samay wax ba nekkuma fa dunduma histoire bi créé wu ko ñoom dañ jàpp ni sénégalais yi mënuñu xeex fii ba mars nu ñu xeex xeex xeex dinañ taxaw lu ñu xeex xeex xeex dinañ doyal lu ñu xeex xeex dinañ sonn parce que plus naqar nu mu mën a metti metti metti metti metti bu sa baay dee woon sax wala sa yaay dee wala say mbokk yëpp dee munoo koo jooy 6 mois 7 mois 8 mois 9 mois naqar bi ma day giif loolu moo tax Macky Sall bugg éliminer Sonko ay 6 mois avant les élections wala 7 mois avant les élections dugal ko ci kaso bi nga xam ni gars yi dañuy toog di di xeex comme xeex bi ñuy xeex nii non xeex bi libéré wul kenn xeex bi am na solo nag kenn du ko xeex xeex la mais libéré wul kenn xeex bi moom mooy nañ def comme printemps arabe bi. nañ def comme Mali Mali dañ doon xëy suba ngoon guddi bëccëg amul xeex lundi bàyyi mardi dañ doon ñëw ci place boobu noonu di suba ngoon guddi ak bëccëg di xeex di xeex di xeex di xeex bu président bi daw di xeex di xeex dégg ngeen fi tam place Tahrir ca ya ñoom tam dañ doon ñëw di daje algériens yeeg yooyu gars yi dañ doon dajaloo ay égypte tunisiens yi di dajale ci place di xeex di xeex di xeex di xeex ba mu barak jóge fa di xeex di xeex di xeex ba benn aali jóge fa Mali di xeex di xeex affaire bi loolu la affaire bi doo ay xeex bàyyi affaire bi ay xeex la yoo xam ne day tegaloo lundi xeex xeex mardi xeex mercredi am benn place bu gars yi di retrouver wu tous les jours un million deux millions trois millions de sénégalais dajaloo ci ay place di yuuxu di yuuxu ñii di xeex ñii di taal ñii di boyal loolu rek moo mun a dawloo président président Mali looloo ko dawloo président Algérie looloo ko daane président Égypte looloo ko daane président Tunisie looloo ko daane président yi ngay gis Burkina looloo ko daane amul benn président bu ma gisagum ci àdduna Sri Lanka Sri Lanka seen président looloo ko dawloo gis suñu façon xeex bi xeex la nag xeex la dama ko xeeb de xeex la dama ne suñu façon xeex bi benn mu daanoogul benn régime donc war nañ ko mun a xoolaat nañ ko intensifier loolu mooy intensification des frappes l'intensification des frappes. loolu kese la mais sama vidéo bi bi ma bi ma décrire lan moo tax teguñu ko loolu yomb na <laughs> j'ai déjoué le plan lu fi nekk rek moom mooy nga ñëw ne Mollah merci Mollah big up loolu kese la. dégg ngeen vidéo vidéo boobu euh, euh, euh, kii lu mu tudd El Hadj Me El mi ngi naan juge bi jox naa la permission bi teg ko mais lan moo tax ñoom ñuy hésité ku nekk naan teg ko ñoom indi woon nañ ko yow kay lu li nga am loolu rek mooy gore sénégalais bi rek loolu mooy reconnaissance man fayu leen ma joxu leen ma lekk joxu leen ma naan dama sénégalais laa ni yéen li may xeex xeexu leen ko bakkan di ma ciy teg tegu leen ko sama famille di nekk en danger donc man lu ngeen am ci man moom mooy retour retour du bâton mooy ñëw ne gars jërëjëf merci beaucoup kese loolu rek moo may bégal amul leneen fayu leen ma joxu leen ma xaalis joxu leen ma lekk joxu leen ma naan maa ngi déjoué junni plan ak juróom-ñaar ñoom buñ bu bu fekkoon ni waxuma seen seen film boobu raconté ko nu ma ko raconté dañ koy teg parce que moo leen moo tax ñoom ñu indi ñu indi écran écran ñoom dañoo ñëw indi seen écran indi indi seen projecteur teg ko noonu di fort non seede yàlla tubaab yaa ngi koy seede ngeen foog ni ñoom dañoo ñëw indi seen écran géant indi seen indi seen projecteur teg ko fa pour caaxaan ba El Hadj ne yoruma ba pare toogaat ne procureur bi teg ko mun nga ko teg léegi jox naa la ko. lan moo tax man maa déjoué seen plan maa raconté film bi lépp comme ni ma leen raconté li war a am ngeen gis ko buñ tegoon film bi noonu ngeen koy gisee. il faut ngeen reconnaissant tuuti lii mooy tax nit ki du bëgg dara ci affaire yi parce que day rey boppam di indi di jël sa famille def leen en danger di jaay bakkanam joxoo ko lekk joxoo ko naan di faay di reyante di la joxi information te du journaliste jaayul journal jaayul dara reconnaissance gor nit day gore gore reconnaissance reconnaissance mooy tax doomu aadama bi di sawar ci yow mais boo nekkee benn nit bu du gorewul nit bu du delloo bu du rendre la nit boobu mérité wul dara yàlla sax nangu nit yooyu da leen di rëbb yàlla ci boppam parce que dafa yàlla si boppam moo nangu reconnaissance ni doomu aadama day reconnaissance ci liggéey doomu aadama bi xam ni bu ko neexoon du ko ci fekk man kaaw laa nekk samay morom a ngi fii di liggéey di lekk di naan faale wuñ Sénégal kenn du ci génn di tayla sa bakkan ndax Sénégal kenn amul kenn ku nekk kaaw bitim réew fii kuñ song këram taal ko amul kon ñoom ñi ngi calculer ñi ngi xeex di calculer pour buñ taal seen kër baay yi pour buñ taal seen kër yaay yi kon ni ñu toogee ci kaaw bi di calculer seen dund di calculer seen dund baay di calculer seen dund ndey ba di xool nu ñu ko defaree nu mu gën a rafetee wala di liggéey di yónnee seen kër yi ne Sénégal jarul la leen tey reyante ba tay la seen i njaboot bu ma neexoon def comme ñoom te duñ kenn du ci mun dara toog fu ma toog di lekk ba suur di naan ba màndi di wax wax ju yomb di wax wax joo xam ne duñ may àqal dara wala di jaay sama ngor je le fais pas. defuma ko je me bats pour ce pays là parce que man maa leen gën a bëgg Sénégal bu ma sañoon duma génn Sénégal man bu ma sañoon Sénégal laay dee loolu mooy suma dund bu ma sañoon kenn du ma jël ci néew ci beneen beneen dëkk di ma yóbbu Sénégal kon l'amour pour ma patrie moo tax ma ci may def li may def nii xaaruma ci kenn loolu mooy gor nit ki même boo koy waxal di ko fenal di ko fenal ba gis li waa ji lu mu lay wax yëpp yaa ngi koy gis xanaa nga ne nga ne mais waa nag kan nu ma ko bañ bañ bañ bañ bañ nu ma ko bañ bañ bañ nag mais naa ko nangul dëgg bi parce que dëgg bi dëgg yàlla la du moom ku la wax ba ne la de boo leen demee bu ñuy juger Ousmane Sonko Adji saar dina wax ni Ousmane Sonko da ko doon laalee taatu ginnaaw da ko doon laalee ginnaaw ba bu Ousmane Sonko da doon bëgg bu ko dugalee ginnaaw sodomiser ko bu génnee mu am ay déchets mais kooku détail boobu dafa yomb détail boobu dafa doy waar moom ngeen dem dégg Adji Sarr di wax même chose ñu bind ko ci journaux yi mais loolu wan wax naa leen ko kañ kañ laa leen ko wax ngeen foog ni loolu man mun naa ko toog di ko imaginer nu ma defe ba wax leen loolu loolu laa defee ba wax leen film am na film bu ñu monté am na nii nii la film boobu maa ko maa ko bu ñu indee seen caméra kay indi seen écran géant indi seen projecteur teg mooy am na lu ñu bëggoon teg dem ba ci biir kii ne aw ma kii ne aw ba pare laa Hadj naan ay ay kii lu mu tuddati ay ay procureur mun nga ko teg léegi jox naa la autorisation mun nga ko teg lan moo tax parce que Mollah moo fi nekk moo wax lu mu wax ba pare wax leen vidéo bi wax leen lépp na leen bés bu ñu ko tegee màbb leen taal leen dëkk bi <laughs> mun nañ def loo xam ne mun nañ def seen projet te loolu du ci nekk kay balaa loolu day dévoiler lépp parce que ba dañ koy teg rek gaa yi yuuxu dëkk ba tàkk moo tax teguñu ko donc <laughs> lool kay bu Sonko toogee na ah Mollah Morgun moo dem moom moo moo moo lii man au moins am na ay bomb yu may désamorcé am na seen i bomb yu yoo xam ne maa ngi koy désamorcé bëri na bo bomb bu ñu teg ma désamorcé ko léegi film boobu lu tax teguñu ko kan nan lañ ma koy laaje man kay félicitation la vérité nan lañ ma koy laajee El Hadj Diouf ngay dem laaj lan moo tax tegu leen film bi procureur bi ngay laaj lan moo tax tegu leen film lan moo tax ngeen indi fi écran écran géant indi fi projecteur tegu leen ko loolu man kenn mënu ma ko ku ma ko posé tooñ ma di man <laughs> kay loolu moo laa jërëjëf bu fekkoon waxoo film boobu ñu monte ak lañ ca def noonu kon kon heure bi teg nañ ko ba gën ko yàq yàq lu ñu yàq Ousmane Sonko yëpp ñi ma wuñ teg fël mi boobu donc man sa waaye li ma mën maa ngi koy def de li ma mën maa ngi koy def ci defin gu gën a rafet ba pare di ko def ci def ci xeex bu tar maa ngi koy def loolu rek laa mën nag di wax di di détourner xeex bi di yàq di seen organisation ma koy tas loolu rek laa mën loolu kese laa mën di daana ay ponkal di noppiloo ay ponkal ne procès bu nganda nganda ngand Sénégal 17 million de Sénégalais ñu tudd ci ñett nit ñett El di tudd ba tudd sama tur ñaata liveur ñoo am fii est-ce que da ngeen tur benn liveur ci biir palais de justice maa ngi fii Canada ñu tudd sama tur foofu Pape Alé Niang bu ñu tudd mi ngi Sénégal journaliste la keneen ke ñu tudd euh, mi ngi Sénégal journaliste la je suis la seule personne la seule personne au Sénégal buy live du ma sax journaliste je suis un rappeur ñu tudduma ci biir procès Ousmane Sonko l'histoire retiendra ça bu bàyyi bu ñu bàyyi woon El Hadj Diouf mu commencé wax ci man wax ci Pape Alé wax ci wax ci kii lu mu tuddati waa jooju maire de Guédiawaye ñaata ñooy live fii da nga dégg dégg nga ci kenn ñu tudd turam foofu loolu c'est parce que je pèse très lourd très lourd très très très lourd je le dis bien je pèse bien mes mots je pèse très lourd personne kenn mënu ko arrêter man kenn mu kenn ku ma bañ yaa mais yàlla moo def nii yàlla moo ko def nee naa leen kenn mënul suul ker yàlla moo ma jël teg ma ci kaw jox ma xam-xam ba pare jox ma leer ba pare di ma may ay information muy xam loo xam ne du deñ set million de sénégalais ñuy wax di wax waxu Adji Sarr bay tudd sama tur mais ça l'histoire le le retiendra la fe man dama dama dama fekk Sweet Beauté dama gis Sweet Beauté fii la ma fekk. Sweet Beauté fii la ma fekk ma def ci lu kenn defut wax ci lu kenn waxut liggéey ci lu kenn liggéeyut moo taxit yàlla def ni ñuy wax ci projet di tudd sama tur bu ñu demee bay wax Pape Alé na di di di ci teg Pape Alé un grand journaliste di ci teg maire Guédiawaye un grand journaliste di ci teg Mollah Morgun waxaatuñ keneen c'est parce que déggoo dama ne fii amul liveur bu us Macky sàll du du di seetaan man maa ko wax ku leen ne Macky Sall kay saraan man maa ne Mollah Morgun nee ko day fen de source sûre dama ne fii Macky Sall benn du du sax seetaan live lu bëri Mollah Morgun lay déglu lay seetaan des fois parce que jabaram da koy seetaan suba ngoon guddeeg bëccëg doomam da koy seetaan suba ngoon guddeeg bëccëg lépp la ñu gis may fëgg fii affaire bi di def ay coow yu tar ci kër yi di yëngal kër yi barke alxuraan information bi di ñëwaat ci man bu ma waxee fii Malick Seck rakk Marème Faye Sall ba ma duggee seen biir kër am lu ma wax ba yaayam Mara Malick sekk dafa toog di jooy ndi mattu nan ma Mollah Morgun sama yaay lay wax non Mollah bi billaay na bàyyi sama yaay na bàyyi sama yaay mooy yaay Marème Faye Sall dama sama yaay di jooy loolu di jooy di ko di ko jooy di ko mer information bi di ñëw ci man ñi may wax booy ngir yàlla doo bàyyi yaay mayel ñoom ñoom yaay Marème bi booy ngir doo ci jàpp ngir gars yi di jóge fu ne pale fu ne jaa ngir yàlla doo ci jàpp booy doo ci jàpp li lay war a booy Malick Seck démb daf tuuti mu xaru booy ndax nu ngay wax yaayam mooy yaay Marème Faye Sall Macky Sall nee na fii du fi déglu kenn Pape Alé Niang la fiy déglu man la fiy déglu bu amee temps amul keneen ku la ne Macky Sall da koy déglu ne ko day kàcc parce que ñoom xam nañ fu information ñiy sàcc seen information dëgg dëgg dëgg di ko joxe ñoom xam nañ ko bu génnewul ci Pape Alé Niang du génnee ci Mollah Morgun bu génnewul ci Pape Alé Niang génnee ci Mollah Morgun ñoom xam nañ loolu dafa ñu xam nañ ni ñii ñu leen toppee mun nañ dem jàppi ji suñu sàcc ils sont pas fous barke alxuraan laay wax ne daal ak lu may lekk dama ne Macky Sall n'est ay njabootam ne sont pas fous bu ñu dégloo xam ne ñan ñooy sàcc seen information di ko waxee boo tegee sa plan am nit bu génn wax ko. da nga xam ne kii am na ku ma jege ku koy wax loolu moo tax ñu jàpp Pape Alé Niang tëj ko ci kaso bi tëjaat ko ci kaso bi bu weesoo Pape Alé Niang tey lañ ko li ñuy mën ci Pape Alé Niang ci lañ koy ci man lañ koy jéem a def parce que dañuy xam ne ñaar ñii ñooy ñii ñaar ñii am nañ ñuy sàcc suñuy information di leen ko jox ñoom dofuñu jën a jàpp leen xam nañ ñi ñi laal fu dëgër këj ñi ñi laal seen seen seen xamb maam yi ak ñi nga xam ne dañuy wërantu nii rek xamuñu xeex bu metti lañ ne un gouvernement nga taxaw un jeune nekk di leen défier di wax di jaar fu xasaw di dugg seen ngem maam yi di wax loo xam ni ñu ñuy mer ñuy mer duñu nalaw des yi dañuy jóg nii dañuy jéem a dañ may jéem a jubaleeg ñenn ñi naan dañuy dem laaj leen euh, sama waa ji jógoon <laughs> dem gisante kii lu mu tëddati euh, Thierno bàndoom dem ci bureau Thierno bàndoom di wax ak Thierno Bandom quoi rek jël téléphone bi rek woo ma pour <laughs> allo rek jox Thierno di bëgg di ma bëgg a paas Thierno Bandom mais waa ji tuuti mu xaru Thierno Bandom tuuti mu xaru. billaay du mu xaru maa ngi ko dégg mu yuuxu fa waaw waaw waaw di kat ay bunt waaw ma ne waaw mais lu xew fii sa waa ji ne ma noonu après naa la rappelé naa la rappelé ma ne ko wax mais <laughs> ndakate Thierno Ba Ndom la ma bëggoon paas dafa tudd sama tur rek Thierno Ba Ndom mel ni kuy say di mbëkk di di mbëkk miir yi di kaj buntam yi di agressé ba garde yi ñoo ko doon téye garde corps bi du sama tur kese sama tur kese waa ji ba mu ñibbee laa ko ne lu xew mu ne ma non mais waa ji yow eh, mais booy moo laa bàyyil gars yi ma ne ko lan la mais waa ji tuuti mu xaru te pourtant dama la ko bëggoon paas ngeen kii de mais tuuti mu waay waa jaa kon kay mooy wane ni gars yi ñoom dofuñu autorité ngi toog di seetaan di xool seen may yëngal seen biir kër yi di yëngal seen biir këru nday yi di yëngal seen biir këru baay yi di wax lu dëgër kët yuy daj lu dul dañ seen seen xol yi di changer ñu am envie xaru ñii di mattu ñii di xoola maa ngi taxaw fu ma taxaw di def li ma def man tiitu ma ragalu ma faalewu ma leen te yemul ci ñoom ak ñeneen ak ñeneen dama leen sanal tere leen lekk tere leen naan xañ leen a dund ba ci Antoine ñàkk jom nga expliqué naa leen ko Antoine ñàkk jom bu ñu taalee sama kër jamono jooju gars yi dem fa naan ko waaye mais Antoine au moins comme jàpp leen nangu leen jàpp ñu taal te moo la mais au moins waxal police centrale bi Kaolack au moins des fois ñu fay dem di wër di xool mais Antoine au lieu mu wax loolu dafa laaj waa ji ne ko mais mais da xam moo laa yow da mu ne ko waaw mu mais saaga rek moo laa daf may saaga lu ne la may wax booy moo laa lu ne may daf may ay ñu koy wax ay responsabilité moom muy régler ay comptam en tout cas daal booy fu nekk nii xam moo fi ne man je m'en fous am na kuy kenn kuy wax naan xaw ma lan xaw <laughs> man man man du ma liveur bul mu tuddal ay liveur du ma liveur bu ma fontoo man rappeur laa damay bind samay texte di rhymes di dem ci spectacle yi du ma liveur du ma ay activiste ak yooyu du ma man je suis un man dama mouvement hip hop di rap bul ma jaawale keneen bu ma jaawale keneen bul ma sax fontoo laa la wax man damay rap di bind samay texte di rap ñi ngay wax ay liveur lañ dañuy toog di live di wax live lañ liggéey di wax man duma ma liveur faalo man day liveur nekk ku ma ci affaire live man damay rab rappeur bu ñëw di kaas laa am ay information di ko jox jaam bi point je suis un rappeur gangster rap laay def point leneen lijjanti wuma ko yooyu da di dem ngeen débat ko ak liveur yi fële ñi nga xam ne dañuy live man maa ngi nii lu may def wutuma ci xaalis wutuma ci dara wutuma sit internet wutuma wutuma youtube gars dañu yore seen youtube <laughs> di jaay di lijjanti seen bopp man loolu lijjantiwuma ko c'est un rappeur wutuma youtube wutuma dara Facebook laa def pare dem sama yoon xooluma ñan ñoo ñaata vue laa am jënduma ko jaayuma ko awma ci xaalis lijjantuma man rappeur laa bu leen ma boole ci ay activiste yooyu noonu di live fii di activiste man je suis un rappeur damay teg samay rime di punchline next level man samay rappeur ñooy samay nawle ay rappeur rappeur ñooy samay <laughs> nawle de bu ma kenn fontoo di ma wax sama tur di tur sama tur wax ay wax activiste ay activiste ak ay liveur du ma liveur du ma nday activiste rappeur laa rappeur gangster rab laay def gangster pour muy leer am ay public public rap di rap di ñuy wax ñuy tàcc dem leen gauche dem leen droite left and right déglu leen ma leen di wax mbedd mi di leen wax street bi di leen wax town bi di leen wax cagga ji di leen wax baar bi di man rappeur laa new ma ci mond boobu sax nga nekk monde bu gars yi di def ay vie jaay ay vie xool ay vie man new ma ci monde boobu ah gi ba foog ci monde boobu you know voilà bu may kii gis nga bu ma doon sama gis nga saa yu am na ñoo xam duñ sa duñ suivre live mais dañ may suivre parce que ci rap bi lañ nekk da gis ay mef cem di ma suivre lamaay seen a ngi nii di ma suivre rappeurs yi di ma bi di ma suivre man rap laay def ga ñoom Cheikh Touré di ma suivre ñii hip hop moo ñii doo leen gis ci bi doo leen gis mukk ci ay dem di seraan liveur ñoom kajana di ma suivre ñoom ñii doo gis ci live intéressé wu leen ñii rap moo leen intéressé doo leen fekk ci benn live suivre ñu liveur rap moo leen intéressé man rap laay def hip hop laay def li may def nag laay ñëw di def nii du ma liveur du ma ay activiste on me compare pas avec les liveurs qui sont là qui font leur live après buñ ci paree dem seen non benn rappeur buy kaas la point jeex na ñoom Mourou Mbaye ngi nii gars yi yëpp ñi hip hop rek la ñu suivre xool tur yi tur yi doo leen gis ci doo gis ci ay live de <laughs> intéressé wu leen de gars hip hop parce que xam nga ñuy suivre parce que seen benn nigga moo moo nekk di live benn rappeur moo nekk di live ñu ñëw di suivre mais <laughs> nit la yoo xam ne intérêt live intéressé wu leen di déglu ay liveur intéressé wu leen duñ ko déglu intéressé wu leen c'est des gars yoo xam ne c'est des gars du mouvement hip hop moo tax nga leen gis ñu ñëw di ma déglu di en tant que rappeur buy wax point mu nay leer pare leen sama gars yi si xeex bi pare leen pour pour le combat final yeesaayo maa ngi ñëw ndékk nag

Non, il, il pleut Non, il fait froid, mais il ne pleut Non. Ça veut dire qu'ils ne pas encore améliorés. Yeah. C'est ça, elle dit. Surtout le, celui-là, celui qui atteint là. Mm. Ok, ok, ok. kon nag gars il faut il faut des ñu mettre les points sur les i am na ñoo xam ne dañuy gis ni foog ni Mollah Morgun rappeur la man gëw ma nday man rappeur laa man gëw ma nday affaire activisme yi ay affaire liveur de ñoom ëbbi médecins yi ñu ngi fii di suivre ñi ñii hip hop rek moo leen ñor hip hop seen mbokk rappeur seen mbokki mbaaru rappeur lañ gis muy wax moo tax ñu ñëw di ko suivre ay ñoom ëbbi médecin ay Lamay Sène ak ñii ñëpp ci rap nga leen di dégg ay ñoom Cheikh Touré ay ay parce que monde rap la ay ñoom kajanaak ñooñu monde hip hop la lu dul rappeur intéressé wu leen boo doon laay bëgg àjjana mooy capantati lijjanti wuñ la parce que xam ñoom ñoom ga xam nga rap booy beneen dimension la yeneen dimension la il faut ngeen comprendre rappeurs yi quoi moo tax ñu naan dañu dañuy se ñu newuñu seen monde visuel yooyu vor vindu virtuel vue gang ay gangster lañ quoi néew ñu ci ay monde virtuel kii ñaata vie la am kii nga dem ubbi sa site internet toog di live naan aimé leen partagé leen kii leen yokk leen wàññi leen non mus ngeen ma dégg ci yooyu ñun dañ crazy da ngay dem laaj ñoom Sophie Morgan kan ñun dañ crazy quoi ñun dañ dof quoi dof xam nga dof ñun dañ crazy ñun ak Sénégal moo ñu jaral lu ne dañ crazy dañ dof ba dañ nekk ci yeneen dimension ñun ñun nawuñu fi ay wut ay site toog di wut ay ku ñu aimé wala ay partagé ay yokk leen vie yokk leen j'aime yi yokk we we don't give a fuck we MC we don't give a fuck about all this shit all that shit you know what xam ne ñun dañu nekk ci yeneen degré yeneen vibe yeneen vibe xeexal Sénégal takki bomb di explosé ñun ci monde boobu lañ ne nawuñu ci monde virtuel ay monde like ay monde cœur ay émile man imagine man hardcore bu mel ni man ma toog naan jox leen kër yi jox leen kër yi man pour man loolu yëfu góor jigéen la parce que rab bi rab moo ma nangul loo charte rab nangulu moo ma toog di live ba pare naan may leen kër yi may leen kër yi kon bu ma demee waa rab bi dañ may tëral rendi rendi samba nday na ma doome xaj ngay live naan ay joxe leen nday kër yi yow booy léegi nga gis gangster yi nekk ci ni ci bi wala ci mouvement bi commencé génn naan ma mais fuck you man nga was gooyu noonu moolaa ngay dem naan ay joxe leen kër yi was gooyu noonu lan mooy kër li jëntiwuñ nday kër kër pour jigéen la wala góor jigéen góor yàlla du laaj kër moo tax man dama jomb taxaw naa ne may leen kër yi may leen kër yi waaye këru lan jox leen ma doj yi jox leen ma doj yi larga leen xeer yi larga leen bomb yi ngeen naan ay kër waaye ñun beneen niveau la dangay le rap au service de sa nation point ñun loolu la ñuy def la rap au service de sa nation man rappeur laa il faut c'est pas parce que dama jaxasoog yéen yàgg rek ngeen bëgg may jël def ma ay liveur ay ñi kii joxe leen kër yi may leen rappeur laa charte hip hop moo ma bàyyiwul même malgré maa ngi wax ak sénégalais mais charte hip hop dafa tegu ci man daf may topp. niggas itam di suivre rab bi dañ may topp am na loo xam ne bu ma koy def ñu saaga sama ndey bu ma koy def ñu may clash parce que dama war a demee ak concept hip hop. joxel information bul ci wut dara en retour bul ci wut lekk bul ci wut loo naan bul ci wut kër bul ci wut gem bul ci wut gel même gel parce que rab boo boo ci wutee gel nga ay saaga sa ndey dañ ko c'est interdit strictement interdit booy rab waroo cee wut gel gars yi moo tax gars yi naan rab ba dugg jeel moo gën rab ba am gel kon rab ba dugg jeel kon ñun rappeurs yi ñun dañu war a rab ba dugg jeel dañu war a rab ba ñu rey ñu gis nga nit dof mi ci biir jeel bi en tant que MC ko shout brother nit daf kill loolu moo tax rab bi il faut ngeen comprendre dimension yooyu noonu ngeen bàyyi di booleek di ñuy jaxaseeg ñiy live fii kii ñooñu dañu am seen monde bopp ñoo seen monde bopp ñoom man nekkuma ci monde boobu voilà pare naa ci li may wax ak yéen de je parle plus de Idriss Seck nii de Pathé Seck li ma la wax xanaa ne ngeen jóg taxaw xeex Je parle au peuple sénégalais point lu si yëpp moom ay détails la des dafa baax nga tontu parce que gars yi des fois da ngay def te tekk rek gars yi foog ne ab góor jigéen nga wala yow mënoo tontu rek da nga waaye yow mooy <laughs> mbedd mee ñu yar de <laughs> mbedd mee ñu yar xeex rek lañu xam xeex. da nga woowee boo woowee rappeur ci xeex de moom sax waaye yaay daw. rappeur xeex rek la ko yàlla may xeex kalaasante saaga da xëpp ci kaani kaas yuuxu loolu suñ liggéey huit heures trente sept il fait tout hein après mon petit déjeuner gis naa sax am na ñuy kaas waaye rappeurs yi xam nga rappeurs yi si boppam ah ñoom ubbi médecin gis naa leen ñuy kaas waaye ñoom Mawla Gaañ léegi dañ gën a bàyyi bi nekk ci affaire activisme yooyu xam nga waruñu fàtte game bi quoi dañuy war a ñëw di teewal you know on the street na saint gama gars dañuy kaas de dañ ñuy kaas dañ ñuy mere de ay man mii ay ñoom nit dof ay ñoom Abdou Karim Gueye nii waaw mouvement hip bi dañuy mere de billaay dañuy mere parce que dañ naa ñun dañoo sëgg ci de trop ci ay affaire bii di wax di ca Ibrahima si dañ waruñu ko bàyyi même fan si dañuy kaasa ah. da nga leen di gis ñuy kaas ñoom voilà ñun fii la fii lañ la soxlaa ci game bi gars jox ñu sound boog baay mais jox ñu shit yi baat parce que non mais voilà jox ñu shit yi baay xam mais dañu réclamer da ngay dox ci street bi booy géro yi génn di saaga sanday naan mais laa lan la gayan waaye ñu tam dañu am ci yow wàll dañu am ci yow wàll was wasa mais mais tegal jox ñu sound gayan jox ñu sound am nga ngay toog di rus nii xam nga fekk yaa ngi jël sa lépp def ko ci Sénégal live live yuuxu di quoi euh. mais ñoom tam nañ bëgg sound loolu moo tax des fois ñuy ñuy sarri dugg studio man jamono ji maa ngi leen di liggéeyal maa ngi leen di liggéeyal parce que am nañ ci man wàll tamit quoi am nañ ci man wàll ñoom ñoo tax ñu xam ma bu mu méttee ba métti live yi siwalu ma man rab moom moo ma siwal samay mbokk ay samay mbokki mbaar ay ñoom ay ñoom Cheikh Touré la ay ñoom moo xam nga ay ñoom Sophie Morgan Kane ak ñoom ubbi médecin ñoom ñooy samay mbokki mbaar ñooñu ñooñu laa màggandool ñooñu ñoo accepté sama musique ñooñu ñoo ma njëkk accepté avant ñeneen di ma accepté moo tax nit ki nu mu metti metti metti waroo fàtte démb ñooñu ñoo ma def ñoom man hip hop ma def hip hop ma def li ma doon gor gi gor bi ma am ci man kus néew hip hop moo ma ko def mbedd mi ma xam hip hop moo ma ko def non man waruma fàtte hip hop donc ñoom dañu am cër ci man moo tax son temps dañuy taxaw di kaas te dama koy xam ni dëgg la waaw j'ai trop mis ci ay affaire kaas fii di wax nangam mais des fois war na dama war a dellu sama game waaw dama war a dellu ci sama game ak ñoom pëccoo et cetera ndigal si des fois dañuy dañuy mer ah. dañuy mer dañuy ne mais gars jox ñu sang jox ñu chute yi bàyyi mais gars yi maa ngi ñëw maa ngi jégalu nag game bi maa ngi ñëw de barke alxuraan maa ngi ci ah, maa ngi raa maa ngi gis nga temps yi maa ngi dugal sax ay photo pour dalal leen parce que booy industrie yi dañuy kaas rek ay ñoom ubbi médecin kaas rek la ñuy def ñoom yow gars mer waaye mais gars yi jox ñu séedi what's up man mais Mollah gars yi yaa ngi wàcc sa yoon de bàyyi xoolal fu muy tar bi ñun la woon woy ah. mais tey yaa ngi fi ay followers ak yooyu mais gain street bi soxlawul loolu you know ni followers niggas yi la soxla ma ñi nekk ci street bi di follow moo tax des fois ma jël dugg studio génn sànni leen benn photo calmer leen xam nga loolu appaa <laughs> la quoi di nga mën a ak calmer ñoom Cheikh calmer ñoom Pëcco calmer ñoom obi xam nga au moins bu ñu xoolee ñoom ñoom Sophie dañ xool ne ah kon mi ngi ci kawam ñoom du Carter dañ ne Mollah mi ngi ci kawam bàyyiwul bàyyi ma rabbi de billaahi bàyyi moom tey la waalo gën a aay maa ngi ci maa ngi bind gars yi dégg naa seen métti dégg naa seen mer tamit xam naa ni kontaanu leen ñu xam da bëgg tam may génn saam di ko ci teg bañ a fàtte li ma li ma fal jubbu bu ma fal ma ko watee ñu folli ma ma donc maa ngi ci maa ngi ci maa ngi ci ko waaw du Moussa Fata game bi maa ngi ci maa ngi ñëw gaay maa ngi ñëw de billaay maa ngi mu Macky laa xaar mu jóge fi Macky laa xaar 2024 mu jóge fi ma ñëw ak album incha allah yee du respect ma brother du Carter maa ngi ñëw man yee maa ngi ñëw Macky rek laa xaar bu jóg mooy ñëw indi album bi maa ngi ñëw léegi 2024 ñoo ngi wàcc ak album ay vidéo yu nice yu top xam nga album yu nice woote concert ay tournée voilà comme ni nit defoon nekk France ñëw xam nga indi beneen game ba pare ñëw teg ay concert ci stade yi ñun ñi ngi meeg daalas ñu ngi ñu ngi fii di meeg daalas ñëw yor sañu xaalis bi ñu ñëwee indi xaalis bu bari ànd ak producteurs yi mel ñoom Cheikh ànd ak ñoom du Carter ànd ak xam nga gars yi négas yi teg concert ci stade yi ñu xam ne moo laa ndakate nawuloon fii rek topp politique bi di kaas rek quoi ñu xam loolu ñëw teg concert ci stade di ko ci teg xam nga indiwaat beneen lu doore yeneen blason gangster rap hip hop bu dëgër bi bu wow bi bu konkorong bi <laughs> mais parce que la nature a horreur du vide ñun dañoo bouger moo tax léegi booy fees fi dal te booy itam bëri xam nga booy léegi <laughs> holy am nañ flow am na style mais man booy bu ñëw fii man boo mu gisee ma la wax booy am nga flow am nga style mais so try to write xam nga bindal quoi bindal bind bind dañ soxla bind rab du rab du lekk riim loolu da koy jomb rab du lekk riim bàyyi leen riim yi ngeen di lekk day leen dóor riim yi day leen ko wëri gymnastique intellectuelle boobu intellectuelle boobu dafa war a feeñ tu vois dama koy conseillé booy mais tey da ngay xam ne affaire bi mi ngi bëgg a dee mi bëgg a moo tax gars yi soxla ñu mi ngi bëgg dee parce que booy waxatuñ kaasatuñ booy duñ waxal Sénégal gel rek gel gel gel adduna mel ni addunay gel gel gel gel gel gel xale bi xale bi xale bi xale xale bi lan la xale bi bu lekkee ba suur day puub quoi xale ba ngay wax xale boobu day puub day laabu xale boobu du mystique du dëmm du jinne du rab xale di yorul lu keneen yorut bu la ñu xale bi bu leen ñu rey ak xale bi xale bi amul caapar rek la yor comme ñeneen ñi ay moroomam xale bi yorut lu keneen yorut la ñu sonal ak xale bi gaay bàyyi xale bi day day daxot day doxot day day day puub day saw day day day laabu xam nga xale bi du rab du jinne du malaaka sonal ngeen ñu xale bi booy boo ci gis léegi xale bi xale bi xale bi sama xale bi di jooy nag ah, ah, xale bi nu ma bëggee ma bëgg la oh, oh, ah, comme ay mbottu ñu sonal booy xale bi booy xale bi du dara xale bi du tus boo ci amee cinq minutes daanu laalo xale bi dootu la safati dara bu ñu sonal xale bi du nix benn cinq minutes de mballu nga daanu xale bi dootul safati dara ngay bugg a kaj ndayam bu ñu leen woyal xale bi nga ne ko non mënuma ko woy parce que boobu daanu nga ba pare kon kon pour ñu solal xale bi yuuxu bi yëpp day fekk daanoo goor booy daanu xale bi dootul safati ñeex ñu solal bàyyi xale bi wax leen ci street bi wax leen ci mbedd mi wax leen ci town bi wax leen li xew wax leen lu nekk si seen suufu xef yi si géro bi you know wax leen ci bool dof bi wax leen ci street clan clando yi nga xam duñ doxantoog peep ñu leen di tànc xam nga di leen yóbbu gaayan di leen tëbal ñu parce que amuñu dañ leen jàppee benn manque de carte d'identité benn obi médecin boo xam ne day taxawaaloog motom amul këyit ñu koy jàpp suba ngoon te muy maajal hip hop you suba ñu tànc ko gaan amul sax carte d'identité amul carte ñu tànc ko yóbbu ko fayloo ko 5000 6000 mu kóol la kóol baag nga ñëw fayal ko 6000 mu génn njaab yow ci mbedd mi xam nga yow rab leen loolu bàyyi rab leen loolu seen booy ñi ngeen wax xale bi xale bi gënul sa frère bi nga xam ni wala sa doomu ndey wala sa booy bi nga xam ni yow ba nga sonn moom moo la taxaw xale bi gënu ko sa waay xale bi gënu ko bu muy metti am na ko nga nekkaloon sa koñ muy metti ngeen di ànd ba léegi mi ngi xësal pour mun a am dara you kooku moo gën a xale boobu ngay wax noonu wooyal waa jooju wooyal waa jooju mu tudd Abdou nga ne waaye Abdou ni nga Abdou booy bu muy tar ñoo nekkoon mu may jàppale xoolal Abdou rabalal laay fu Abdou moo ëpp fuuf crédibilité ngay rabal laay fu gel boobu noonu parce que xoolal gel boobu après la ñëw Abdou moo fi nekkoon Paate moo fi nekkoon Obi moo fi nekkoon bu muy tar di xaar nga am problème mu lekk ngeen di kolo kolo you know rabal kooku booy laay fam laay fam mi ngi foofu wala ñeneen ñu mu mel ni moom nga may ñu jàmm ak faatu xadi amina xale bi léegi rab bi lépp loolu la xale xale xale mbërki démb gis naa tam débat yooyu noonu fata fata crève yi ay débat yoo xam ne man man dama toog ma ne mais man ñi jot bari jot baaxut vingt et unième nga toog di di wër ay nday ndayu rab ay kii mooy ndayu rab mbalax mooy ndayu rab taasoog nday ñun faalewuñ nday ndayu rab ñun rab lañ xam lijjantewuñu ndayu rab quoi ndayu rab ñun lañ ko lijjantewul ndayam moom moom ndayu rab lijjantewuñu ndayam parce que ndayu rab nday rab rab rab ndayam nu mu mel doomu mun na ko bañ a mel ñun lijjante wu ñun tooguñu ba vingt unième siècle toog di lijjante nday kan mooy ndayu rab ñun ndayu rab xoola na faatu ñun rab la ñuy lijjante quoi ñun ñun nobuñu nday ray ndayu rab nobuñu ndayu rab ñun rab la ñu nopp kon nous on n'est pas là di lijjante kan mooy ndayu rab taasu la wala xalam tuqasi ngalam wi doon gi ba foog nday ndayu rab ñun rab lañu lijjan ñun rab lañu lijjanti rab rab moo ñu nàmpal ñun lijjanti wuñu ndayu rab ndayu rab xamuñu dee na xamuñu deewul xamuñu lijjanti wuñu ko quoi ñun intéressé wuñu du mu toogee dégg ñuy wax kii mooy ndayu rab kee ndayu rab buy doon gi ba fokk baaw ndayu rab ñun rab moo ñu intéressé rab moo ñu intéressé pas ay ndayu rab ñun voilà ñoo am jot di lijjanti nday yor xam taasu laag tuq si ngalam laag xalam laag mais loolu mooy lan vingt et unième siècle temps bii di boy boy nga war a taxaw di wax street bi ngay wëri ndayu rab léegi boo xamee ndayu rab na après léegi rab rab kii mooy ndayam waa taas mooy nday après dafa war a tax ñu taas ñun parce que taas mooy ndayam dafa war a tax ñu taasu kon daal euh, kon euh, ino kan mooy yaayam rek euh, kon kon ino dafa war a mel ni yaayam hmm? kan moo ci mel ni yaayam hmm? kan soit nga gën sa yaay wala sa yaay gën la point <laughs> dañoo lijjanti ay nday yorab ñun mais was goy noonu mais Sénégal lan mooy problème bi toog ci toog gars ñëpp toog temps bi temps bi di daw xool dëkk bi di développé ñu xool ñu koy defal ngeen taxaw di nan da ngeen di lijjanti nday ndayu rab kon nafata kon nafata lu suñu yoon ci ndayu rab na doon mbalax na mbalax doon ndayu rab suñu intéressé wuñu taxuñoo mbalax duñu taxa mbalax kooku ndayu rab la mais rab mbalaxul rab mbalaxul bu dee ndayam da doon mbalax moom moo xam dama ne ndayam rab bu doon ndayam moo moo mbalax moom mbala moom ndayam la bu doon ndayam moo doon caga moom ndayam moo doon caga mais rab moom góor yàlla la day leer doomu biiral yi dañuy tekki voilà doomu biiral na doon milliardaire doomu biiral day toj réew doomu biiral mun na doon fierté réew est-ce que dañu nekk di lijjanti la kan mooy ndeyam non non sont fous de ndeyam moom ci boppam il s'est créé autocréation def na fexe na ba taxaw ba ñëpp xam ko ba adduna yëpp xam ko ñu respecté ko ñu loolu moo ñu yitteel lijjanti ñu ba xam yaayam cagala woon wala we don't give a fuck kon ñun ndeyu rab na doon mbalax parce que c'est pas parce que ndeyu rab mbalax la dañoo war a mbalax lijjanti wuñ ko ñun hardcore la ñuy def rap la ñuy def gangsta la ñuy def bu wow kongo bi dëgër këcc bi la ñuy def di wax ci street bi di wax ci mbedd mi di bind ay textes yu lucide yu solide pour doomu aadama yi lijjanti wuñu ku bëgg a mbalax mbalaxal bu ñu sonal ak ndeyam ak baayam ak umpaañam ak tantam vraiment l'arbre généalogique du rap ñun lijjanti wuñ ko boo demee ba lijjanti ndeyam fexeel nga lijjanti tantam tamit comme Fata ma ne moom day wut lijjanti moom daa toog bëri jot di lijjanti kan mooy ndayu rab bu paree ba xam ne ndayu rab na lijjanti tante yi rab ak maam ak maamu rab ak bàjjanu wujju peccorgooy rab eh, ak ak ak nja eh, eh, rab kum kum kum kum njaalool ak ko lijjanti moom comme moom daa jot di lijjanti ay larbe généalogique ay maamaati maamu rab ko dem ba lijjanti ndayu rab di nga lijjanti maamu rab boo lijjante maamu nga lijji après Fata boo paree nga lijjanti wujju peccorgooy rab mooy lijjanti wujj peccor gooy ndayu rab nga lijjanti tamit ndayu rab ki wujjëm wujjëm ndayu rab wujjëm moom moom moo wujjëm parce que yaa comme comme rab dafa am nday ndayam boobu noonu doon kan la doon wujjanteel parce que <laughs> Sénégal wujjee la bu dee ndayu rab moom taasu la taasu kan mooy wujjëm wujjëm léegi kan mooy wujj ndayu rab bi loolu yëpp na nga ko lijjanti parce que comme yow am nga jot di lijjanti l'arbre généalogique di rab di ndayu rab kuy bàyyi rab wujj peccor gooy rab tante rab wujj pecc wujjëm dama lijjanti loolu ñun amuñu jotam ñun rap la ñuy def quoi rap ko gangster music hip hop you know mu mu di wax ci street bi di wax xam nga ñun ghetto boys lañ quoi nekkuñu ci ndayu rap lañ jënd tewuñu ndayu rap noo tax man débat yooyu nekkuma foofu noonu dama naan ñii est-ce que dofuñu ñoom. adduna bi di tukki lu fi des bëreetul gars yi di génn di hustle di fay di gi ngeen toog ngeen toog ngeen toog fanaa di di. tergiversé naan ay ndayu rab fii jaar kee mooy bàjjanam ak wujj peccorgoom ak kee mooy tantaam ak kee kee doon wujjanteel yu doon gi ba foog nay leer kon sama gars maa leen di bàyyi à bientôt incha allah peace and I'm out waaye bëggee sama gars I love for you my brothers all right hip for life Bra.